incha allahu rabbi yaakaar naa ne lépp dina noppi de incha allahu rabbi di kattan téer moom aar la quoi gars yi dana war di am classe di jël loo xamante ni dañ ko mën a ñëw mais jël loo ëpp lu ëpp loolu noonu carrément jël rek nit ku nekk da ngay lekk sa wërsëg moo tax événement bi di yëg si bopp bay tabaski lépp pare incha allahu rabbi noonu lañ def actuellement yan bi ñu ngi ci broderie yi gestionnaire yi euh, suba suba gi dañuy ñëw def seen i voile def seen taybaas yu rafet noonu lay def noonu lay def ngoon gi ñu doog a dem seen gestionnaire wala productrice bi moom sincèrement xew na quoi. mais ni moom instant ren moom daamina bi dañ ko wàññi bu baax a baax a baax a ñëw simple moom gestionnaire yeeg yooyu yëpp gars yi dañuy osé ay affaire yu nice dañuy def yoo xamante ne bi lépp ay simple lay doon bon créé ko lu rafet rafet lañ koy def ah, ay tey basi rafet ay rob non pas tellement nag coupure courant yi moom ay 10 lay am ñëwaat sincèrement vraiment moom nice quoi. am nañ yaakaar ne dinañ ko matale ndax fi nekk nii ñaw yi bari na waaye yëpp dinañ ko defal incha allahu rabbi parce que xam nit ñi léegi ñoom bu ñu indee seen ñaw dañ laan la dëkk ci dëkk bi dañuy génn dëkk bi xam nga loolu moo tax quoi mais yàlla def na ñaw yi incha allah yëpp dina pare bu soob yàlla waaw. waaye di ngeen tenir ci compte rek ni dig dëkk waaw non xam nga ñoom dañuy wax loolu rek waaye ci dëkk bi lañ dëkk waaw dañuy wax nag dëkkuñu ci dëkk bi dañuy génn pour seen ñëw teel a pare loolu moo tax waaw waaw. mais actuellement nii amoo leen actuellement moom amaguñ ci benn quoi actuellement waaye parce que ya rendez-vous yi ñu ngi koy respecté ku ñëw ñu jox la rendez-vous xam nga defaral la ba mu baax waaw. actuellement yenn tissu moo gën a nekk tendance lan lan ngeen di gën a ñëw. non actuellement fi mu nekk nii tey ah, jasneer bi lañ jël lañ gën a jël jasneer bi lañ gën a jël fi nekk nii bu baax a baax quoi moom moom jël moom koy jël. su mel ni daa mi léegi wàññeeku na de nit ñi simple bi lañ jël wala. nit ñi ñu ngi koy def sax parce que fi mu nekk nii daawame bi dañ koo delloo si waat ñu ngi ciy génne loo xamante ne nii lu rafet la nit ñi dañ koo indiwaat loolu moo tax dafa demoon mais dellu si waat na baax na jërë ngeen jëf

D'accord. merci beaucoup. ok Nofa. Euh, naam gis euh, ay fan yu néew moo des ndax nga mën a liggéey ci euh, am naa ci yaakaar de bu fekkee dañ amuñu ay coupure ay coupure courant naa li ñu waxante yi dañ ko def. Ah. parce que coupure courant yi moo ñu mën a déstabiliser. mais bu dul loolu pare nañ pour def lépp li nga gën a lépp. ñaw yére jigéen yére góor mais nag booy xool jigéen ñoo gën a ñëw yi quoi ah, xam nga nag nit ñi parfois seen bëgg-bëgg lañuy ñuy ko quoi kenn ku nekk ak ni ko amul lenn loo xam dafa nekk en bopp am na ñoo xamante ni problème moo leen intéressé am ñoo xamante ni jasner yi am ñoo xamante ne même voile yi ça nag ci nit ki ko tayee di jooy ko ko def. te xam naa pare boo ko def incha allah ok Khadim actuellement ni ñaw yi nu mu demee fii biir gannaaw eh, tabaski ay fan yi néew moo ci des waaw ñaw yi de moom ñu ngi ci kawam ñu ngi dóor waaw benn san xam nga rek moom dañoo teeloon a jël yoo xam si dafa yem rek waaw a di jël ñaw yoo xam ne dañuy sonal suñu bopp et puis ñu rendez-vous ñun moom rendez-vous bu la jox boo ñu la jox see waaw yan ñaw lay gaay gëna ñaw ren waaw mom ku nekk da am façon yi ngay ñawee waaw mom dañ dañuy ñaw ay brodé ay mbassay jessner et cetera et cetera bari na daal waaw waaw ni farlu nga tamit ñaw xalé yi de wa ñaw xalé mom mo gëna dox gis nga yépp ay ñaw xalé gaay di koy jënd da koy ñaw da jaay bu lu seer ndax xale yi moom sañ sax man ñi waaw ñaw xalé mom day dox moom macha allah ok merci jëlëbi ko tabaski bi waaw loolu est ce que yéen di ngeen matale li ngeen digle client yi ah waaw parce que ñaw yi ni mu war a demee demeewul noonu waaw lépp dina pare bu soobee yàlla ñu déggee ni mu war a demee demee noonu maanaam client yi bëriwuñu ren maanaam client yi bëriwuñu ren dañoo yéex a xotti quoi dañuy bàyyi ba dernier moment ju doog imsé disé ñooñu nag bu ñëwee dañ leen di renvoyé neen ba affaire yi jàll quoi pour ko mën a ñëw si si bis tabaski bi oui mais yi nga digle dal yi nga jël daal xalaat nga ne di nga ko pare balaa tabaski waaw yi ñu jël yëpp moom bu soobee balaa tabaski moom lépp dina complété moom client yi moom kenn du mer. ren lan mooy tendance ren ah ren daal moom doy na waar daal doy na waar. jaxas nañu yëpp doy na waar ren gën a ñëw ren. jaseer lañ jël jaseer ak brodé boo jël ren ak mbasin russe yi boo jël ren waaw. jërëjëf. ok <laughs> yow waaw bi gis nañ que ni ay fan yi néew ñoo des euh, ci tabaski bi est ce que xalaat ngeen ne di ngeen matale li ngeen digle client incha rabbi bu soobee la moom dañ matale quoi ndax xam naa ne ñun moom dañu yar attanul quoi ndax man bu ma depuis dimanche dimanche dimanche ba jël quoi ndax dama bëgg ñëpp ma quoi sama xar daal dama bëgg dama bëgg rayal ko sama bopp quoi bëgg ma kenn rayal ma sama xar léegi période bi actuellement ni ñaw ñaw ñaw ren waaw ren xam nga rek Sénégal modèle yi daanaka benn la quoi amul changement quoi famille yi xale yi Taïba mère yaa ngi si parti yi xam nga góor ñi ñu ngi si Taïbo yeeg super sang yi xam nga affaire yooyu quoi. mu mel ne daamine bi dañ koo gën a wàññi. waaw daamine bi moom xaw na wàcc quoi ndax man ren vraiment client daamine li ma si am bëriwul quoi ndax daamine moom vraiment wàcc na bu baax quoi garantie bi daal moo gën a kii quoi waaw sinon moom ñu ngi ñuy rey quoi seen baat yi li ñu créé ñu ñu créé ko àndil ñu te bu ñëwee gën a yomb d'ailleurs léegi ñu ngi ñëw baat yi ànd ak organ saa yi ñu ngi koy wàccee di ko jaay si bitik yi xam nga di jaay ay tampon di jaay lépp te lépp ñun ñoo doon ñëw quoi mais dañ ñëw dugg expert bi xool suñu liggéey après dem dóor ko quoi duñ di ko jaay yow xam naa fi ñu jëm moom du neex waaye simple bi moom mënuñ si dara ndax naa nit ñi foog sol yi rek waaw sant baax a baax a baax mais ziar naa leen bu baax baax baax a baax a baax a baax